Euh, kuréel gi nga xam ne ni moom moo daje fii tey di waxtaan ak yéen mu ngi tudd COJIR euh, di collectif boo xam ne ñun ñoo gis ne ci jamono bi ñu toll jot na ci ñu taxawal euh, loo xam ne daf ñuy mën a tënk ñun ay ndaw ngir ñu mën a am loo xam ne dañ koy doxal ci suñu wàllu liggéey ak ci fi nga xam ne fa lañ bëgg dëkk bi jëm muy njaareem gi ñu nekk ak ci senegal kenn tablewul ne fii ci Diourbel amul benn structure benn kuréel boo xam ne bu ñu reconnaitre la boo xam ne dafa tënk ndaw ñi ngir yu mel ni su amee ñu mën di ci daje di wax rawatina ñi nga xam ne mooy jeunesse bi nga xam ne dañuy accompagner li nga xam ne mooy le politique politique bi nga xam ne nii moom la président de la république di def loolu moo taxaw moo tax ñu am sañ-sañu taxawal kuréel goo xam ne ñun bu tënkul ñëpp it ñun danañu mën a tënk ba ñu mën a boole suñu ay kàddu mën a wax ak li nga xam ne nii moom lañu bëgg a wax sénégalais yi wax ko suñu mag ak suñu rakk yu góor ak yu jigéen yi waaye itam wax ko ki nga xam ne moom lañ dénk suñu réew muy la président de la république. ñuy tàllal loxo képp kuy ndaw di góor ak jigéen dëkk jur Jurbel wala nga dëkk ci Sénégal ñu leen di wax ni lii fi jaar fan yi ba am ci ay barab yu bare xam yoo xam ne yàqu na ci. muy ay barab yoo xam ne benn daan na taaral dëkk bi ñaar ñi nga xam ne sunu waajur yi daan nañ fa dem ngir di fa fàggu li nga xam ne ni moom la ñuy yoree njaboot gi bu nu ko yàqoo yàqee tey mettit lay doon ci ñëpp ñoo wax mukk ne loolu lu baax la ndax tey ji boo xoolee ña doon liggéey ci ay ndaw seenub lim kenn xamul nu mu toll tey ji seen ëllëg kenn xamul ci nu muy mujj moo tax loolu dinañ ko mettitlu dinañ ko naqarlu ci yàq-yàq yooyu nga xam ne am na fi moo tax ñuy tàllal suñu loxo di woo képp kuy ndaw ñu war a boole suñu ay doole boole suñu ay xel boole suñu ay xalaat ngir ñu mën a ànd tabax réew moo xam ne réew mu dëgër lay doon réew mu dëgër lay doon ci wàllu démocratie surtout loolu noonu ndax tey jii seetlu bi ñuy seetlu lu ci ëpp mooy yenn ndaw yi dañuy ñëw nekk ci ay ginnaaw leader di leen topp ñu di leen defloo di leen bàyyiloo est-ce que jotul tey ñu fàtte loolu noonu kenn ku ci nekk fàtte fi nga bokk ñu mën a dajale suñuy ay doole ànd pour intéret Sénégal yépp je pense que tey jii loolu moom la ñuy woo ndaw yépp ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax ku ne xam ne nag yu mel ni saa bu jugee du man benn nit moo ciy jëriñu wala ñaari nit mais tey bu demee ba sotti danañ gis ne aw askan dëgg moom moom ci moom moo ci moom moo ci jëriñu su loolu weesoo ñuy waxtaan ak tam ki nga xam ne mooy suñu njiitu réew parce que yàlla def na nag lu mën a xew moom lañ dénk suñu réew te ba fii ñuy egg 2024 moom mooy yor réew mi kon lépp loo xam ne suñu gis-gis la ak suñu ay xalaat lu jëm ci ñun yàpp nañ ne am nañ sañ-sañu jàkkaarloo ak moom ne ko ñun kat nii lañ bëgg parce que tamit nit ki su fekkee da koy jàppale wala di ko dimbale wala di ko di ko taxaw te lañ koy defal yépp fan koy nasee ak fan koy tënkee du fa jote du ko fekkee yaakaar naa ne loolu pour mu mën a am ni mu ko bëggee lu jafe lay doon moo tax ñun ndaw ñi nangu nañ ne tey am na ay jéego yu am solo yoo xam ne tey jii njiitu réew mi ak ñi muy àndal ci wàllu liggéey def nañ ko lu mel ne DER su ma naataangoo wax na ko léegi taxawal nañ ko gis nañ ne lu am la te gis nañ doole di nga xam ne moom la président de la république dooleel DER waaye DER dafa sori ndaw ñi ndax tey jii li jëm ci wàllu procédure bala nga cee jot ndax ku ne xam ne tey jii moo xam Jurbel gi ñu nekk wala ci Sénégal yépp ay ndaw lañ lañ am yoo xam ne ay ndaw yu jàng lañ ay ndaw yu am xam ay ndam yu am seeni ay diplôme am na ci ñoo xam ne c'est des porteurs de projet defar nañ seeni ay projet mais tey pour jot ci DER boobu noonu wala jot ci yi nga xam ne ni tey moom moom la ñu yittewoo pour mën a doxal li bëgg a liggéey am gi lu jafe la moo tax ñu ne président au lieu ñuy jël lépp tënk nga tënk ko ndakaaru nga xam ne day ji pour nga jot ci financement DER coono bu metti ngay daj ba finalement boo moytul sax di nga ci tàyyi ba dootoo ko continuer ñu koy ñaan ne ko na fexee taxawal ci département yépp ay kuréel yoo xam ne ñooy teewal DER ci biir département yi su ko defee ndaw yi nga xam ne dañoo yor seeni ay projet mën a dem foofu ci anam mu gën a yombee mën ko foo mën ko faa bàyyi su ko defee toppin wi dana dana mën a dana mën a yomb te it la nga xam ne ni moom lañ cay amee ngir doxal seen liggéey lu mën a yomb lay lay doon. gis nañ tamit euh, bu yàggul dara président wax ne dina taxawul kuréel gu rëy tuddee ko au au conseil de l'insertion ñun ñëpp ñu tàccu bég ci loolu kontar ci loolu parce que tey jii nag li am solo ba am solo mooy sunu rakk ak sunu mag yu jigéen yi nga xam ne tey jii dañoo jàng ba yor seen i sax ñii nekk ci secteur informel bi waaye am ay projets yu dëgër ay projets yu bancable ñu fexe tey jii ñooñu nu ñu leen insérer ci fànn gu mënti doon léegi kuréel googu tey est-ce que dañ koo war a teg ndakaaru rek ñu toog ci ay climatiseurs yu sel sedd di ñu xalaatal ñun ñi nga xam ne tey ñu ngi fii tey ci tey ci suuf ñu jàpp ne président loolu dafay xaw a tey suñu xel moo tax tey ñu koy ñaan ginnaaw kuréel gu rëy bu mag boobu muy taxawal mu taxawalal ay kuréel yoo xam ne. ci fukki région ak ñeent yi nekk ci Sénégal fu ci nekk mu am kuréel goo xam ne mën nañ koo tuddee lu mel ne conseil régional de l'insertion su ko defee fa la ñuy nasee di fa tënkee di fa waxtaanee lépp loo xam ne ni tey dafa soxla insertion ndaw ñi su ko defee ñu mën di ko jàllale muy ñëw ci kaw jàpp nañ ne daal loolu mooy li gën a yenu maanaam su fekkee ne ndaw ñi bëgg nañ leen bëgg nañ leen a taxawal parce que tey jii wax na ay réorientation budgétaire maanaam tënk na lu tolloog ay milliards yu bari yoo xam ne daf koo bëgg a jëmalewaat ci ndaw ñi waaye ñun ndaw ñi jàpp nañ ne lii ñu ko jox nii comme ay proposition su looloo loolee amul la fi daan am rek moom mooy moom mooy moom mooy amaat kon monsieur le président ñu sa askan moom mooy wax ak yow say ndaw ñoom ñooy wax ak yow te danoo fas yéene bis ni tey bépp ndigal boo joxee te pour mu jëm ci ndaw ñi dootuñu bàyyi kenn di ñu ko saytul ñun ndaw ñi ñoo koy saytul suñu bopp suñu bët yi danañ ko jël ko ci lépp loo xam ne nekk na ndigal bu gouvernement Sénégal wala état Sénégal joxe te mu jëm ci ndaw ñi ñu xëpp suñuy ba teg ko ci te saa bu ñu ci gisee loo xam ne nar naa jàdd yoon ndax ñun kat ay béy lañ kenn du ñu kenn du ñu rey ci rondal lépp loo xam ne gis nañ ko tey mu nar a jàdd yoon danañ jugaat taxaw defaat nii ñu def yëkkati suñu ay kàddu wax ne kat train bi mi ngi bëgg a wàcc raay bi ñuy ñaan mosieur le président de la république di ko ñaan ngir yàlla war a sóoli bi mu toogee ci nguur gi ba tey. mësta recevoir ndawi njaareem te monte ñun ñëpp ay sénégalais lañ bokk nañ ci ñi nga xam ne fa mu toog